bu toll ni jam ñaajo bii yëpp bii mooy point de vente bi. bu centralisé bu centralisé waaw waaw lépp ba pare fu stade bi nekk et tout yow nga ibi. point point de vente sur 2 heures à 3 heures de temps trois heures de temps maximum sur 3000 billets c'est plus que malade, parce que parce que parce que xam xam yi taxaw bëgg jënd billet match vous trouvez normal ah, hein? c'est pas normal mais c'est grave c'est un problème à régler xalaat ne waral euh, li nga lañ manque d'organisation bi ak ticket yi nga nit mënu pendant presque tous les matchs du Sénégal ah man de je pense que nag loolu moom c'est pas du tout parce que boo xoolee xale ñoo ngi fi te bari nañ ñun ñoo mën a dooleel ñi di seetaan quoi bu fekkente ne Sénégal dañoo jël lépp bëgg ko def business bu dox quoi mun je ne peux que waa bi ticket yi yegg si fi ñoom jël ko di ko yokk au contraire daf ko war a wàññi pour xale yi mën a dem seetaan du jam ñaajo kese même yeneen point de vente yi ticket yi dafay yëg après ñoom ñu jël ko yokk ko waaw waaye apparemment sur euh, stade de Ngalandou Diouf bu Rufisque même point yi problème lañu am fi nga xamantene moy mooy Alassane Djigo ak fi nga xamantene moy fédération sénégalaise de football ñet dañuy dem ñu jox leen heure mais pendant presque 5 heures wala 6 heures de temps ñi dañuy rang duñu gis ay eh, ticket. non dafa dafa wara a dañ mhm. pour loolu dañ nag. il va falloir que ñoom ñu xool ñoo xamante net ñooñu lañu jot ci kii ñu koy jaay. Mhm. parce que bu dee ne si point de vente yi comme par exemple maire bi nii ñoom lañ ñëw sas leen ci kii ñu jaay ko. Mhm. day am problème ñu changé ko seet ñeneen ñu koy jaay. nga xamante ne moom la ñu terminé mooy nekk na ne fédération bi ñoom la ñu jagleel lépp lu jëm si wàllu vente de billets te gis nañ ne peut-être seen liggéey des na. bo gisee la même chose li nga xamantene moy won Sénégal euh, Égypte 29 mars bi nga xamantene mom lañu la won pour dem euh, mondial de 2022 même problème lañu amone et peut-être lolu moy continuer jëmoon nañ fi andi ben système pour jaay ticket en ligne mais lolu doxul tey ñu war a continuer waat est fédération bi tam jotul tey ñu war a jéem a xool ñoom nan la ñu war a mën a externaliser li nga xamante ne mooy vente de ticket yi. Ah. loolu nag loolu nag mooy mooy mooy yoon loolu moo exact waa fédération. sénégalaise bi dañoo dañoo war a jël seen matuwaay ci loolu. parce que seetlu nañ depuis loolu problème boobu bari na fi. Mhm. donc nañ nañ seet yeneen juddukaay yoo xamante ne. ñëpp dinañ mën a jot si ticket te du am problème. fédération sénégalaise na jël na jël ses propres ñu defar loo xamante ne daal ñëpp dinañ jot seen seen seen loolu daal laa gis ne moom moo war dox